Mimi Touré yëkkati na ay kàddu ci situation dëkk bi nee na procès bi procès caaxaan la te président Macky Sall su ñemee na samp mbërëm pour 2024 moo duñu dellu si waat procès bi ngay wax mais je l'ai qualifié de procès bidon je le répète ma ma mbay ñaa ñaata yoon la toog ci seen plateau yi di ma attaqué yóbbu naa ko tribunal ñu bokk kan ah, yéen ñëpp fekkee ngeen ñaata yoon donc ci ay waxu politique ñu ne bon dañuy éliminer loolu c'est antidémocratique ça c'est li nga xam ne moo war a nekk. encore une fois jàpp vraiment ne dañ ko bëgg a éliminer en tant qu'ancien ministre de la justice. pour moi c'est un procès bidon franchement je le je le dis et je yi nga xamante ne ñoo fa taxaw di nag noo leen di qualifier kon bu boobaa. soxna si procès laa wax. waaw mais procès bi juge yi ñooy joxe ñooy man mais c'est am naa rek ñi nga xam ne ñoom ñooy joxe décision de justice bi. en tant que ancien ministre de la justice juge yooyu ak magistrat yooyu naka nga leen di qualifier bu fekkee le procès est bidon kon ceux qui sont non je ne qualifie pas pas les juges parce que du sama cër li ma wax mooy la raison du procès est bidon kooku xanaa leer na <laughs> voilà xaw ma ci naka laa ko mën a exprimer ci ay waxu politique ka nga xam ne moo yóbbu moo ko yóbbu tribunal muy Mame Mbaye Niang ci seen plateau yi lu ne yekk na ma fi mais dama ko muñ jàpp ne bon wala dama ko dépassé ci lu mel noonu nga ne tey nga voilà éliminer ab candidat saa yi aussi nit Sénégal dañuy nangoo waxante dëgg dëgg dafa am solo ci réew munoo fi éliminer ay candidats parce que waxoon nga c'est pas IGF c'est IGE ça n'a aucun sens. man loolooy voilà donc man loolu laa lool lool loolu laa bëgg wax tentative laa wax wax ma éliminer tentative laa wax y a un appel et j'espère que sera pas le cas parce que man li ma gëm mooy démocratie na ñëpp bokk. bu fekkee ne waa wóolu nga sa bopp mais na ñëpp bokk nga gagné démocratiquement ni mu amee woon 2012 c'est ce que je dis donc encore une fois première. voilà mi ngi noonu soxna mi Touré gërëm gërëm bu baax moom Abdou Top waaw gis nga Abdou Top temps montage yu graaw yi muy dóor flèche kii jaajëfaay voilà Assane diglu nga Mimi. dégg nga ba mu waxee daal mën naa see kii. ah kon dama comprendre. loolu la Assane kii wolof la doon wax di. waaw ah, waaye comprendre ma wolof yi dimbali ma si rek ñëwal wax ma man la. kon te ñu laa jox version français bi. wax ma rek. <laughs> nee nañ bi kon tey ñu laa jox français bi. élément yàlla xam ne xanaa xamuma élément élément sëñ Mbàkke bii nga teg sax. Ah. man yow bi nga ma ko joxee si li nga ma jox laa tontu. kon da ngay nelaw mu ni. non ma nelaw mais yow moo ma joxee man si laay gën a mën a wu caaxaan la. Hmm. wax na ba wax ci biir ni bu mag bu président Macky Sall ñemee na samp mbërëm dem. Hmm. Mame Mbaye Niang mi waral coow leen wax na ba wax ni ñoom invité nañ ko seen plateau yi ba taay mu di ko xas mais du ko faale. Hmm. maanaam lijjantiwu ko. ci gàttal. waaw am na solo mu ni Mame Mbaye yàgg na koo xas attaqué. waaw du ko tontu. waaw ah, loolu du fi mbañ comme ni mu daan attaqué Ousmane Sonko rek. nit ki ngeen bokkul gis-gis am nga droit attaqué ko ndax noonu la doon def beneen bi procès mu ni procès caaxaan la mm. waaw défendre na fi procès bu ko gën a nekk caaxaan muy bu bu kii bi bu aji saar bet caaxaan la te bu ñëwee défendre na ko ni ni yoon yoon na def liggéey défendre ko dafa waxoon xalaatam rek lu waxoon noonu moom dafa ñoom euh, wala boog liste bi nga xam ne mooy ticket di joxe ticket ci euh, Sweet Beauté waaw daan ni na yoon def liggéeyam na dem ah. wuy ji yoon yoon def liggéeyam ah. du si sori ndax mbirum yoon la ah. mais lii dina demee noonu moom kay na wax na mu waxoon rek mais bu mu nekk si mbir di ko doxal na mu ko neexee nekkutu si rek bëgg sa xëpp suuf moom moom mbir mi lu mu mën a xew ca la mbirum yoon moom lu fi xew Sénégal si mbirum yoon loxo ma ngi ci biir mbirum yoon Assane pourquoi nga am benn gis-gis képp ci Mimi Touré maanaam nangoo changé benn yoon te pourtant Mimi ay communication mi ngi évoluer ci yeneen côté nag. waaw waaw waaye man sama gis-gis moo mënu moom. Hmm? gis-gis bii ma si amee dafa mun dama ko mun guta jéggi si wetu yoon yoon mbirum yoon ni mu si doxee. Hmm. Hmm. d'accord jaajëf Alaaji. Euh, noo gisee Mimi wax na ay wax de. waaw li mu wax ci procès bi moom. Euh, wax na dëgg. parce que procès bi moom ñoom sax ñoo wane ni euh, procès bi moom procès yi caaxaan la. parce que ku ñu jox verdict mhm. ba ne la daan nga mhm. sab der set na mhm. nga daal di bind ne bëgg naa félicité naa sama justice su réew toogaat ba mu neex la dindi la nga bindoon ne kontaanuma damay def appel moo lay wan ne la cim caaxaan la waa ji ne bëgg a jël réew mi nag dugal ko ciy caaxaan eh, te waa ji moom ci jëmi boppam dafa def jëf ju ñaaw moom waaja waaji seetaan naa ko vidéo boo xam ni mm-hmm. wax ju ñaaw ji mu wax Ousmane Sonko mm-hmm. ñi ko wax wax ju ñaawee noonu bariwul la nan la nit mën a def loolu nit toog ci télé mm-hmm. ni mbir gën a bonee nga di ko yàq doomu aadama ba noppi nga toogaat ba mu neex la ne da yóbbu waa ji ci yoon ne dafa yàq sama der <laughs> te yow saa yoo xëy ci deram ngay ne di ko wax lu la neex loo xamante ni bii tey ku la waxoon ne waat ko doo ko waat leer na la ni du dëkk nga topp nit ki di yàq deram di wax wax ju ñaaw ju ne nga jëmale ko ci moom bés jot nga xëy loolu doy la nga ne daf maa waxal lu amut di saltel sama der bi taqal na ma <laughs> yóbbu waa ji ci yoon loolu kii moo ko wut quoi maanaam ma topp Assane Mesere di ko wax wax ju ñaaw ju ne yaa ngi dégg. Mm. Assane kiiwu ma Assane benn bis mu wax dara rek. nga jël ko parce que yàq na sama der. Mm. te man ci yàq deram mooy mooy sama liggéey. loolu dafa rafetlu dafa kii ci dossier Adji Sarr ñaaw ji ma dégg. waaw ji gën a ñaaw ci Sénégal Mame Mbaye laa dégg wax ko Ousmane Sonko. non wax ju bon la ko wax. waaw wax dëgg yàlla. yaa ngi dégg loolu yëpp euh, dafa xam nga yooyu yëpp daf lay wan rek. sunu gis nga son bu buñ jekkee jekkee xeeb yenn yi. Hmm. maanaam nga xeeb comme ngay gis ministre dootoo ko naw wala nga gis kii dootoo ko naw xam nga la moo ko indil. Hmm. maanaam danga leen di gis ñu nekk fu baax foo xam ni fu suufe foo xam ni. Hmm. di wax yenn termes yi yenn mots xeebu yi ñu koy génne ci seen gémmiñ gis nga kilifa dafa am yoo xam ne da ko war a jombale sa bopp. bu dee dañ ne la yow kilifa nga. am na ay kàddu yoo xamante ni bii même bu fekkonte ni dafa nekk dëgg nga xam ko. jomm nga di ko wax jomm nit day jomm. mais boo jombalewut sa bopp di yëkkati yenn kàddu yi. di ko wax. mais Mame Mbaye mi. mënoo doon di sekk ak ay wax yu grave. non ñoom ñëpp wax na leen wax moom moom bu jëloon ñi ñi mu wax wax yu ñaaw yëpp. Euh, ku ci nekk ñu tëj ko un rek dootul génn. biiru dundam <laughs> ñi mu wax lu ñaaw rek ñëpp. ñu ne ko yow ku ci nekk ki nga wax lu ñaaw rek dinañ la tëj un mm. ci kenn ku nekk dootul génn. c'est mm-hmm. mënoo dëkk di wax nit ñi wax yu ñaaw ba noppi. Euh, di defe ne mën nga ki donc man defe naa ni lu jëm ci wàllu procès bii mu ne mhm. lii mu ci am na ci jàpp te ngoy ci mhm. parce que di ko jéem a puus mhm. fa muy mu ak moom du neex d'accord léegi dem ba bëgg a yennee ko procès bi no noo gisee communication mi mi li mu wax dëgg la xam nga wax moom li Cheikh Touré waxoon rek léeg-léeg seetaal njariñu wax ci li mu wax procès bi procès bu bidon la man moom loolu laa gëm te ci loolu laa mos a ne. d'accord jàpp ma ni mbir la moo xamante ni mbir mu sérieux la. te buy wax ba léegi. et puis xam nga lu day wax ni président Macky Sall wërta bokk. waaw mais moom waxam loolu la nee na moom moom du bokk mais na wut mbërëm bu ñemee. waaw na wut mbërëm moom moom warta bokk parce que sax xam nga ñuy nekk naan war naa bokk sax di ci mm-hmm. idée. c'est yi yëpp mooy bokkut ñu calculer leneen. d'accord nit ñi fi mu toll débat yëpp bu nekkoon waa amadu Ba lay jël wala kan lay jël laa bu boobaa rek ximiliku na. mais bu nit ñi naan noo wax a guut di ko mel ne lu ñu koy xaar lu ñu koy xaar ci imam boo xam ne dafa ñëw war a jiite timis ñu ne ko timis bii benn ñaari rakka rak euh, benn rak imam boo xamante ni bi timis mu naan noo euh, li ko Seex Baara waxee woon noo dem imam man dama xool ba xam ba man daal waxaguma dara damay bàyyi ba yegg <laughs> timis moom mën naa am ça dépend ni ñu naan imam ñeenti rakka la ko nar def ak waaw parce que rakk bu njëkk bi bokku ceeg. waaw nga dëgg de. du noonu quoi. mboxoon dëgg la macha allah.